ñuy sant nag délégation bi jóge woon Touba te Cheikh Muntaqa al Khalifa yabal leen ñu ñëw tabaarakallaahu ah sëñ Muntaqa wax dëgg yàlla dama yàgg ak moom tuuti waaw yàgg nañu lool maak moom ah dama nekk ca baaw baab ndawam ñëw fekk ma fa ni ma sëñ Moustapha Bachir ma ni ko waaw mu ni ma nee nga fekk ko Colobane daf la soxla ma dem Colobane fekk fa sëñ Moustapha Bachir mu dugal ma ci chambre à coucher woo sëñ Muntaqa mi mu ñëw ñetteel mu ni ma dama bëgg nga fasante kóllëre ak sëñ Muntaqa mu ne ma ndax fi nga féete sëñ Cheikh Tidiane si la ma féete ni ma tàllalal sa loxo ma tàllal mu ne sëñ Muntaxa teg ci mu teg ci mu boole sunu ñaari loxo téye boobaak léegi nag umpante wunu ci dara waaw fu ñu toll ñu ngi jokkoo tabaarakallaahu ñu yebal délégation ñëw fi waaw eh, yaatal yaatal lu am solo la waaw ndax dama ànd ak sëriñ Cheikhou Sy ñu dem fii ci Colobane kër sëñ Cheikh Gaynde bi ci guddi ñu toog di waxtaan ak moom nag ci salon bi moom sëñ Cheikh Mbacke mu ni ma baa bu la murit joxe addiya di nga ko nangu ma ni ko bañal nangu ah ma ko damay nangu ba tëdd ca naaj parce que itam samay taalibe maam lañu sëñ tuuba te sëñ Cheikh Tidiane si wax ne fii ci gàmmu ci course bi wax ni oto bu mu am murite ko ko may waaw yooyu pour yu dëgëral diggante yi waaw te itam loolu la ñu sant loolu la ñu bi sant tabarakallahu loolu la ñu bokk gi sant